jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, maa ngi leen di nuyu dellu am mbégte ñëwaat ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Malaw Ndiaye mu nekk membre ci parti bi di PDS bokk ci ñi nga xam ne ñoo yor communication parti démocratique sénégalais. mu nekk professeur ci lu jëm ci wàllum finance comptabilité moom la ñu fas yéene seqal waxtaan euh, li nga xam ne moo wundu émission bi mooy élection législative yi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal moom naturellement mu bokk ci euh, coalition euh, Wallu Sénégal Malaw Ndiaye yow nga bokk ci parti bi di PDS maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di nuyu seeni auditrice ak seeni auditeur donc di profiter aussi si li ma en bi di masawu askanu Sénégal si méttit bu ñu nekk si inondation yi parce que Sénégal moom bu ñu jógee si bi méttit rek dugg si bi méttit xaw ma nag ndax ndogalu yàlla la wala ay ndogalu ay nit ñu mënul la waaw mais loolu daal laa doon nuyoo di ñaan suñu borom aussi émission bi ñuy def tey mu doon émission bu amal njëriñ askan wi ñu teg ko si xam-xam teg ko si dëgg parce que loolu la acteur politique yi war a def parce que dañoo am benn mission principale mooy informer les citoyens loolu constitution bi mooñ ko jox donc euh, damay ñaan suñu borom émission bi bokk ci mission yi noble yooyu ba bu ñu ci génnee askan wi mën a xam lu bëri si wàll doxalin suñu parti ak suñuy ambition ak si doxalinu réew mi jërëjëf. Euh, Malaw Ndiaye euh, man tim fi may commencer sama laaj mooy da nga wax sànq ci wàllum inondation yi wu askan wi dañu gis ne président Macky Sall 2012 bi mu toogee. am na plan décennal boo xamante ni ay milliards yi milliards la ñoom nee nañ li ñu ci def toll na ci cent 766 milliards waaye ba léegi gis nañ ne jafe-jafe ma ngi am waaye balay président Macky Sall tamit yéen seenug ay yéen waa PDS gisoon nañ ne askan wi lu mel nii rek lañ doon dund. waa jërëjëf waa inondation moom da de des problèmes récurrents nga war ko régler su des solutions avec des solutions structurelles mais pas avec des solutions conjoncturelles. président Macky Sall 2012 defe naa dafa ñëpp gisoon dañ ko à la pompe mu ne day taj day da euh, dissoudre Sénat pour xeex inondation yi yaakaar naa ne heure bi heure bi Sénat mi ngi jooy Sénégal ñëpp ngi jooy parce que li taxoon mu ñëpp li taxoon muy def loolu ñëpp xam nañu ne c'était c'était pas euh, euh, pour askan pour njëriñu réew mi mais c'était de la démagogie parce que depuis chaque année inondation bi de gën a yokk wax nga lim si def man damay jël exemple rek Promoville ñu ne xam ne pour deforo ay voiries la 300 kilomètres de voiries on a dépensé là-bas 280 milliards au-delà les 700 plus de 800 milliards qui sont dépensés pour lutter contre les inondations te yaakaar naa ne at bu nekk Sénégal yi dañuy gën a sonn at bu nekk askan wi dañuy gën a inondé wu donc moo tax fu mu nekk nii ñun on se pose des questions donc moo tax ñun nag lii assemblée nationale waroon def muy évaluation. Mhm. évaluation. Euh, de la politique publique yaakaar naa ne évaluation euh, assemblée nationale dafa fayir foofu ñun nag moo tax ñun bu ñu ñëwee loolu la ñu bëgg a gën a doxal fexe ba assemblée nationale di njëriñ askan wi di jàppale réew mi mooy di xeex di évaluer les politiques publiques. maintenant da nga ñu da nga ma wax lu am solo da nga ne ñun dañoo nekkoon dañoo nekkoon au pouvoir dañoo exercer pouvoir waaye mais ñun gàcce ngaalaama si lu ñu def si inondation dama lay jox benn exemple bu mooy cité APEX. cité APIX wone woon nañu yoon bi parce que dañoo ñëw fekk fii ñu seetaan askan wi ñu dëkkee nu mu leen neexee mënoon ñëw rek génne leen ñoom ñëpp mais da defar ay cité yoo xam ne assainir ko ba ku fa ñëw xam ne lii fii kat fii du inondé wu yaakaar naa euh, sëñ Abdou Khadre visité nga cité APIX boo ko visité di nga xam ne fii c'est l'ambition fii connaissance la fii xam-xam la cité Jaxaay aussi c'était dans le même siège mais malheureusement dañ ko achevé na transparence waa transparence moom. xam nga defar ay yow mun na mais est-ce que sinistre yi lañ fa yóbbu. très bien laaj laajal ñu fa dëkk laajal ñu fa dëkk sinistre yi ñoo fa dëkk évidemment donc am na ñu jaar seeni kër am na ñu jaar seen terre parce que am na ñu yaakaaru noonu ne projet bi nii lay mel. mais ñun lépp ci transparence lañ ko def dañoo defoon des comités yoo xam ne des comités euh, locaux la woon chaque gox ñu tegoon fa benn comité ñooñu ñoo doon attribuer te cité apis yaakaar naa boo demee nga defee enquête laaj leen ñoom yaakaar naa récemment rek ba ñuy gën di wax nañ ne ñoom ñëpp Abdoulaye moo leen fi Malaw euh, Malaw Ndiaye yéen waa coalition wàllu Sénégal est-ce que yaa ngi wax sànq ci assemblée nationale mais est-ce que seen campagne yéen ñeme ngeen a tudd problème mu inondation waaw moom laa lay wax ne dama ne ñun ñun coalition wàllu ñun dañuy fier di ko tudd parce que dañ fee def lu loo xam ne ñëpp dañ siy teg seen loxo inondation nee naa la problème structurel la parce que Sénégal dafa exister depuis des années des milliers des années ou bien des centaines d'années nit ñi dëkkee woon nu mu leen neexee ñu ñëw fekk ñun 2000 lañ jël pouvoir fekk nit ñi dëkki fekk fi inondation mais ñu ne ñun lii kat pour ñu régler ko il faut des solutions structurelles solution structurelle mooy lan jéem a fexe ba certes créer des yi mais la solution majeure mais ce qu'on appelle les zones non édificantes yi fi nit ñi warul dëkk ñu jëlee leen fa yóbbu defar ay zones euh, assainir ko dëkkal leen fa fi ñu mënul dëkk nag ñu ñëw assainir ko donc loolu mooy objectif plan Jaxaay loolu mooy objectif APIX yaakaar naa ne cité APIX ak plan Jaxaay c'est des exemples patents donc euh, lu ñu naan tunga ni du du neew du teew ñuy natal waaw loolu dafa leer nañu euh, euh, Malaw Ndiaye yow nga nekk membre comité directeur bu PDS bokk si ñu yor seen communication tey wàllum assainissement ci Sénégal ak milliards yi nga xam ne état bi moom la wax ne moom la si dugal ba léegi solution tey solution amul lan nga jàppoon lan nga fan nga jàppee ne fa la bi nekk ci ci ci régime Macky Sall. waaw jërëjëf régime Macky Sall première lajjite bi mooy ñàkk xam ñàkk mën am na volonté Macky Sall loo bañ bañ da nga xam ne am na volonté. maanaam bëgg na. bëgg na. bëgg na mais mënul. très bien dafa bëgg mais mënul. lu wax loolu. très bien parce que euh, xëy na loolu jeunes yi ak créativité loolu noonu la ñu war a tànnee njiitum réew yaakaar naa ne ñun ba ñuy jël réew mi en 2000. ba ñu posé suñu projet ñëpp dañu doon wax ay éléphant blanc la mais yàlla def na ñun ba ñuy avant ñuy toog xam nañu ñu jëm Ablaye dafa opposé wu depuis 1974 ba 2000 am projet ñoral ko togg ko ba xam fi mu jëm moo tax dafa ñëw rek toog déroulé Macky Sall nag malheureusement c'est un président par défaut comme ni ko nit ñi di waxee amuloon plan amuloon projet ñëw na fekk fi ay euh, difficulté malheureusement mu géré ko de façon impulsive donc géré ko ci xol bañ ko géré ci xel daakaar naa ne loolu mooy indi lii mais mais mais est-ce que tey président Macky Sall nga xam ne président Ablaye Wade defoon na ko premier ministre. defoon na ko président assemblée nationale. tey Macky Sall moomu nan nga mën a waxee ne bëgg na mais mënul kon mën nañoo jàpp ne kon su dee mënul Ablaye Wade indiloon nañu premier ministre bu mënul. très bien déedéet mën na mais dafa am lu mu mënee xam nga ñun en management dañuy wax yaa ce ko appelle euh, des activités yoo xam ne c'est réservé à ce qu'on appelle la technostructure cest à ñoo xam ne ñooy xalaat. c'est la conception c'est la programmation loolu c'est pas donné à n'importe qui de le faire Macky Sall c'est un bon acteur euh, opérationnel premier ministre mën na ko def parce que premier ministre yow da ngay dérouler euh, euh, politique bu président bi président bi mooy définir ne la lii ngay def moom loolu mun na ko mmh. mais li mu mënul mooy xalaat xarañ xam fi mu jëm ba pare mën a résister si occidentaux yi c'est-à-dire son problème majeur mooy nan lay def ba am stratégie pour mën a faire face à ko qu'on appelle l'environnement extérieur mooy ce qu'on appelle la géopolitique ce qu'on appelle les occidentaux malheureusement moom dafay bàyyi ñu koy téléguidé di ko def loolu lu ko lu leen neex te ñooñu bu ñu leen di bàyyee rek du ñu jëmale réew mi fu fu baax ñoom lu leen lu leen intéresse ban rapport la am ak échec bi ci wàllum inondation bien échec si inondation xam nga ñoom ñoom dañoo créer seen benn euh, ce qu'on appelle les objectifs les ODD mooy les objectifs de développement durable ñoom dañ ne adduna bi nii la war a doxee pays yëpp nii lañ war a doxee ñun bañ fi nekkee dañoo ñëw créer suñu plan de développement pour toute l'Afrique yaay la defoon année boobu muy de 2000 à 2012 Afrique amoon ay présidents yu am xam-xam yu bëgg Afrique muy Thabo Mbeki muy Obasanjo muy Abdoulaye ñu mettre en place un plan de développement endogène boo xam ne dañ ko tirer ci réalité africaine yi di dérouler di xeex di wut ay financement ñu diversifier suñuy financement bu ñu si ñeen naa la ko wax donc di xeex di xool projet yoo xam ne si africains yi dafay jóge si Afrique jóge si Sénégal seeni bëgg-bëgg ñu koy régler loolu nag arrangé wul woon tubaab yi moo tax ñoom fexe nañ ba ñoo ñu jóge fii 2012 ñun xam ne ñëpp xam nañ ne dañoo xeex ñu ba ñu jóge fi ba ñu fi jógee nag ñoom ñu teg en place les ODD ne ah ñi kat reproche bi ñu doon def mooy lan mooy ODD yi euh, OMD yi euh, da di politique boo xam ne dafa exogène ñun dañoo ñëw imposer ko africain yi mais fii dañuy changer méthode dañuy ñëw nax président yi fi nekk ne leen créer leen seen plan de développement mais plan de développement yooyu ñun ñoo koy defar dañ leen di jox agence yu koy defar mooy le PSE là le PSE n'est rien d'autre que l'opérationnalisation des ODD PSE A ba Z defar luy doxal. maanaam ñoom ñooy xalaat ñoo lay ñoo la koy ñooy xalaat jox ñu mm-hmm. te malheureusement. ba ñuy xalaat ñoom xamuñu suñu réalité ñoom dañuy seet li ñu bëgg boo xoolee PSE dañoo dox ba si biir rek créer ay plan d'urgence les PDC ah programme d'urgence pour le développement communautaire créer euh, PUMA programme d'urgence programme d'urgence programme d'urgence parce que ñoom dañuy dem ba si biir ah xam ne kat wax dëgg yàlla lii ñu ñu jox am na lu bëri lu si sooxee parce que ñun defaruñ ko donc réew nee naa la réew da nga jàpp ne président Macky Sall dafa jëfandikoowul xalaatuwaa réew mi. jeex na loolu mooy problème bi cest à xamul fuy metti seetul fuy metti mais dafa toog ñu imposé ko ay plan de développement mu koy doxal loolu nag tey bëri ay manquement xëy na kaw gi nii dina xaw a rafet mais boo duggee bi si biir rek xam ne. d'accord ça ne colle pas aux réalités euh, des Sénégalais. jërëjëf euh, Malaw Ndiaye yow nga nekk euh, membre ci comité directeur bu parti démocratique sénégale yow la ñu invité tey ci sunu émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM wax nañ ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum euh, inondation yi jommul ne peut-être mën nañ si dikkaat mais ñu wax ci. Euh, bala ñu ñëw ci euh, élection législative yi ci li nga xam ne tey moom mooy euh, dund gi gis nañ ne sénégal yu baree bari ñoo ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe ndax njëg yu baree bari aussi dafa daal di dafa daal di yokku waaye ñi nga xam ne tey ñooy nguur gi état central ñoom nee nañu Covid 19 beek waral ak guerru Ukraine ak Russie bi yow loo ci wax. waaw xëy na loolu am na lu mu si waral mais nag dañu li ma doon wax léegi rek li ko gën a waral mooy ñun dañoo dépendant. de l'extérieur di ñun lépp lu ñuy lekk Sénégal lépp lu ñuy lekk li si ëpp 90 pour cent 95 pour cent day jële bitim réew donc loolu mooy le problème majeur ak lu ñuy fajoo lépp daal dem lépp lu ñuy utiliser rek parfois dem damay toog sama étudiants yi ne leen génne leen ma fi loo xam ne defaree woon ko Sénégal à 100 pour cent cure-dent sax malheureusement dañ koy jéggaane léegi nag euh, euh, boo gisee lii am ñun suñu temps dañoo amoon ñun ba ñuy gérer PDS ba ñuy gérer 2000 2012 dañoo am ñetti crise dañoo am crise financière en 2008 am crise alimentaire am euh, crise aussi euh, en quelque sorte climatique si problème ay inondation yu metti donc yooyu yëpp ba pare am crise aussi pétrolière pétrole bi yokk trop sax dem baril bi dem ba 120 dollars mais malgré cela ñoon amoon nañu génie amoon nañu tact ba mën a Euh, euh, euh, très bien parce que crise alimentaire bi amoon nga xam ne ceeb bi ceeb dafa manqué woon adduna bi yépp ñun boobu la ñu attendoon suñu sommet suñu prix bu ëpp si saaku ceeb bi yaakaar naa ne Macky Sall fu mu nekk nii dépassé na ko donc lool boo ko gisee mooy manque de génie ak manque parce que moom daf ñu promettre woon autosuffisance en riz en 2017 ne moom nangam sangam nangam sangam nangam sangam mais yaakaar naa ne tey ñun ñii lekk ceebu mbay bu weer dee dañuy wër pour gis ko. fon Covid bi nii ba problème amee ba mu waree joxe ay ceeb yaakaar naa ne ceeb yëpp askan wi gis nañ si benn tonnu ceebu mbay nekku si kon ñoom li ñuy wax naan yokk nañ production beeg def nañ loolu dañuy nax askan wi rek parce que ñoom comme ni ma ko waxee dañoo xamul fu ñu jëm xamuñu fu ñu te du amuñu. audace lan nga jàpp ne mooy solution ba bu ba bu amee problème du am. waaw solution bi mooy lan mooy comme ñun ni ñu ko doon defee diversifier la production Abdoulaye loo ko bañ bañ bañ boo génnee si mbedd mi gis ay produit yu bees yu mu fi indi di nga gis ñu ne la ah lii de xaalu. goi guana la di gis ñu ne la ah lii de kaani guana la di gis ñu ne la ah lii soble guana la c'est-à-dire ñun dañoo am côté yoo xam ne dañ ko war a diversifier au niveau de l'agriculture agriculture bi dafa am mbay yoo xam ne xëy na dox na fii mais am na foo xam ne suñu température mayuñu ko mais ñu xool yi nga xam ne ñun suñu température mayuñu ko may nañ ko ñu accélérer foofu ñu jéem aussi accélérer la production du riz parce que ñun on a des habitudes am nañu habitude ceeb quoi qu'on puisse dire sénégalais boo leen bëggee changer loo habitude yi mu na mën nga ko def pour un ñu xool ceeb bi nan la ñuy yokkee la production du riz nan la ñuy yokkee aussi la production du lait parce que mbirum sàmm ak mbirum euh, mbay ak mbirum napp yaakaar naa loolu mooy dindal nit gis nga géej gi nuñ ko def ñun amoon nañu politique ba jël ay carcasse oto di ko dugalaat si géej gi amoon politique di bayaat euh, gàncaxu géej gi mais Macky Sall bu mu ñëwee la ñu doon am yépp moom da ko bàyyi parce que géej pour moo am jën il faut nga respecter ko il faut nga am ay solution trouver ay solution ne ah lii war naa ko mën a def dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans dans 10 ans maama jën mais moom loolu yoonam nekku si moom daal li ko ñor mooy signé ay accord ñu ñu jox xaalis bi mu dugal si poosam léegi mool yi di sonn population bi di sonn baykat yi di sonn yaakaar naa ne moom loolu mooy loolu mooy initiative mais Malaw euh, li nga wax ci géej gi même temps Ablaye Wade doon nañu fi dégg euh, pêche illicite napp gu jaarul yoon bateau étranger yi beneen bi yéen temps ab Ablaye Wade aussi lan la Sénégal moomoon boppam ci wàllum dund ndax temps wu Ablaye Wade moowuñu woon suñu bopp ci wàllum faju gi lu si ëpp dañ ko doon jéggaani lu si ëpp ci meew euh, dañ ko doon dañ ko doon jéggaani ceeb bi aussi temps wu Ablaye Wade lan nga ma mën a wax ne lii moomoon nañ suñu bopp ci lu ñu jëfandikoo. très bien xam nga Ablaye moom ñun si loolu dañ si sawar parce que tey sa ñëw ma foon pour def bilan mais dama fi sawar parce que yi Abdoulaye dafa def loo xam ne lu am solo la mooy daf ñu moomatul suñu bopp si mbirum économie moomal suñu bopp si mbirum koom moomal suñu bopp si mbirum gis-gis wax naa la sànq ne ñun plan yi ñu doon ñu doon doxalee réew mi Afrique moo ko taxoon a te dañ ko toggee woon Sénégal toggee ko Afrique du Sud toggee ko Nigéria moo daan ce qu'on appelle le fameux NEPAD ñun loolu lañ doon déroulé Abdoulaye lan la def si ceeb bi Abdoulaye Wade yaakaar naa ne ay jamonoom ñëpp gis nañ tracteurs yi mu daan indi. ñëpp gis nañu effort bu mu daan def si demoon na sax ba ne damay jéem a parce que ñun suñu problème mooy dañoo dépendre de la pluie ñun dañoo dépendre trop de la pluie suñu politique aléa la 3 mois la de la pluie léegi nga li si des nga toog xaar essayé woon na gisoon na ni euh, Maroc di euh, euh, utiliser pour utiliser les nuages de façon artificielle pour taw uti essayé woon na ko Abdoulaye Wade créé woon na ce qu'on appelle les bassins de rétention pour téye ndox mi c'est-à-dire c'était des projets yoo xam ne malheureusement euh, temps may ko mu yeggale ko mais tegoon na Sénégal si yoon waxoon naa la ne am na fi diversification bu mag bu mu indi woon si mbirum sàmm gi mooy nagu hollandais yi mu fi indi woon c'est-à-dire réew boo koy dox da koy dox sur la long terme da koy def si ay projet da koy def si luy jariñ réew mi si dans un an dans deux ans dans trois ans dans quatre ans mais Abdoulaye Wade mënu woon rek régler Sénégal en un seul coup de bague euh, de baguette magique mais au moins il avait posé des actes yoo xam ne ku fi nekk kii bu ko continuer woon wala moom bu ñu ko bàyyi woon ma continuer ko peut-être heure bi Sénégal jóge fii mais malheureusement euh, loolu la am na lu mu doon déroulé am na fu mu bëggoon yëg Sénégalais mais Sénégalais comprendre ko ñu ko parce que yàggatul dara solution am si wala da nga jàpp ne jafe-jafe yi day gën a tar. waaw Sénégal yaakaar naa ne tey jii ñëpp dañoo am yaakaar si Sénégal Afrique yëpp parce que kat yàlla daf ñoo tàccu te ku yàlla tàccu boo feccul yaakaar naa dootoo feccati bu mukk yàlla nu ñu tàccoo pétrole am na fi bien que yàgg na fi mais nag ñi fi nekkoon dañoo responsable woon doon xaar nu ñu koy exploité pétrole bi depuis indépendance ñëpp xamoon nañu senegal am n pétrole. waaye nag ñun dañu doon poser ay condition doon xaar tamit bu mu rentable parce que pétrole am na noo koy exploité période boo xam ne du rentable euh, zircon am na fi or am na fi lépp luy richesse naturelle am na fi en sus de cela am ñu côte am nañu nit euh, euh, un capital humain assez compétent am nañu aussi suuf donc le reste Sénégal mooy am ñu xarañ ñu xam fañ koy yóbbu ak ñi ko ñi nga xam ne Sénégal yi leen tax a jóg ak ñoo autonome ñoo xam ne tubaab yi tënkuñu leen ñoo xam ne yaakaar ñu ne tubaab yi ñoo leen di fal ñoo leen di falaat donc parce que boo fi nekkee yaakaar ne tubaab yi rek ñoo lay fal ñoo lay falaat da nga leen ni neexal malheureusement ñi fi nekk nag ñoom entre guillemets dañoo yaakaar ne tubaab yi ñoo leen di fal laa nag foofu la amoon autonomie boobu la amoon boo gisee moom mu diversifié woon ay partenaire Ablaye ba mu ñëwee kan mooy ay partenaire am dafa dem jëli Iran gars yi naan ko yow xanaa yoo xam loolu li nga da nga da nga dof mu dem jëli Inde Cuba jël na ko dem jël naar yi donc diversifier les partenaires moo tax ba mu ñëwee 2000 loo bañ bañ Abdoulaye en 2000 ku nekkoon Sénégal ak 2012 ñu bëri bu ñu tukki woon bu ñëwoon dañuy réer parce que xamatuñu parce que dañoo transformer réew mi. d'accord transformer sur tous les plans nag sur le plan quantitatif ak sur le plan qualitatif au niveau des salaires au niveau du capital humain on a fait retourner pas mal de professeurs d'université. on a fait retourner pas mal de prof. mais est-ce euh, euh, wax ne am na euh, lu mu fi def ne ay infrastructures. non bañuma ma lool nee naa la def na fi mais malheureusement dama ne la moom day dérouler pour ODD objectif de développement durable boo gisee terre bi ñii naan def na si 780 milliards ñii naan def na si 1000 milliards terre bi étude d'impact bi ban njëriñ la amal Sénégalais yi peut-être am na ñu ma amal njëriñ mais xëy na mënoon nañu fa def train yoo xam ne dina ëppal njariñ sénégal yi mais ñoom dañu kaa imposer ne ko da ngay def lii parce que da ngay xeex ak environnement bi et cetera et boo gisee BRT bi ñëwagul. mais ban njëriñ lay amal Sénégal yi par rapport parce que on doit raisonner en termes que ñun euh, euh, la nouvelle donne en termes de finances publiques c'est le coût d'opportunité c'est-à-dire lii 1000 na ko defar man ma defaree ko 5000 na baax na wala euh, soxla Sénégal junni sénégalais ñoo soxla fii ñaari sénégalais ñoo soxla fii ma réglé ñaari sénégalais yi bàyyi junni sénégalais yi donc ñun loolu lañ koy reproché boo gisee li mu defar si ay stade est en réalité est-ce que loolu mooy suñu priorité ñun amuñu ay hôpitaux yu doy ñun amuñu ay ay ay ay université yu doy amuñu ay école yu doy ba tey fu mu nekk ni gis ngay abri provisoire ngi fi yaa xeeti réew mu dey noonu kay xëy na am na foo xam ne toll ko fa am na ay priorité yoo xam ne moom la war a def donc je pense que ñun loolu la ñuy reproché Macky Sall dafa nangoo ñu dicté ko parce que Macky Sall bu doon moom moo di xalaatal Sénégal erreur yu bëri du ko def. d'accord waaw léegi euh, Malaw Ndiaye euh, ñu wax ci élection législative yi. yéen ngeen def intercoalition euh, wàllu Sénégal ak coalition Yewwi. Euh, tey li nga gisagun nii ak ci campagne bi ngeen door est-ce que jàpp nga ne cohabitation bi nga xam ne ñu bari ñoo ngi koy agité est-ce que jàpp nga ne réellement euh, lu war a mën a luy luy nekk la. waaw parce que ñun suñu intercoalition bi basé wuñ ko sur l'ex nihilo on a fait des dañoo xool gis élection yi fi jàll gis ne ah département bu ñu ànd ñun si quarante si départements yi bépp bu ñu si ànd ak ñun ak waa Yewwi dañ koy gañe donc à part quelques exceptions près donc ñu xool loolu parce que ñun ak Yewwi xëy na bokkuñu sax orientation politique peut-être ñoom ñun c'est ñun ñun sommes des libéraux Sonko ba tey xamu waxagul moom fan la jëm Sonko moom xëy na waxaguñu ba tey mais ñun ay libéraux lañu kon boog xëy na bokkuñu idéologie politique mais dafa toll foo xam ne réew day toll foo xam ne lii alliance tactique la alliance tactique la pour régler un problème parce que on a été la ñu bokk mooy injustice ñun ñoo ñun ñëpp ñoo ko bokk muy ñun PDS muy Khalifa Sall muy Sonko injustice boobu loolu moo ko waral mooy dañoo jaar jalgate suñu charte réew indi ay loi yoo xam ne baaxul yàqate euh, suñu justice su réew je pense que alliance tactique boobu la pour redorer le Sénégal pour créer les fondamentaux d'un état de droit hmm. alliance boobu loolu moo ko waral te ñu teg ko si su débat solide teg ne lii nag bu ko defee incha allah euh, cohabitation moom day am parce que dañ ko teg si base yu solide donc euh, bu sàcc amul tripatouillage amul comme nu mu ko defee woon si eh, nu mu ko tàmm defee yaakaar naa ne te ñun nañ jël si suñu disposition ba loolu du am mais daal yaakaar naa ne cohabitation moom c'est Euh, mais, c'est que est-ce que tey communication bi si war a am dëgg ba bi xam département bu nekk yeewi lañ fa war a votel wala wal lañ fa war a voté est boobu noonu euh, jàll na ni mu a jàlle yaakaar naa acteur politique yi ñu ngi def liggéey bu am solo ku nekk sa localité di yore bulletin yi di wër parce que wàllu ñun 18 département la ñu am moom mu jël 28 département donc ñun fépp foo xam ne wàllu moo ko gën moo fa ëppoon doole dañ ko ko bàyyil euh, euh, yooyu moo fa doole dañ ko ko bàyyil fépp foo xam ne wàllu moo fa ëppoon doole dañ ko ko bàyyil parce que léegi réew mi dafa toll foo xam ne kenn mënul dem te àndoo si coalition ñoom dañuy coalition loo leen bañ bañ xam ne coalition bu mag la ñu ay leader non non bennoo koy wax ma ko yeewi laa la wax ne la coalition moo yore pouvoir xam nga pouvoir moom Euh, ñi ñi bëgg ñi bëgg ñi bëgg weñ bëgg lu tooy lépp. ak suukar seeg waaw dañ fay dem mais bañ coalition bu mag la. bañu su ko bañu woon kay duñu def intercoalition pour xeex ak ñoom. ñun dañoo xeeb suñu bopp ba ànd ak euh, yeewi kay kon xam nañ ne kon ñooñu ñu mag lañ mais ñun dañoo jàpp ne bu ñu àndee ñun ñoo leen ëpp doole. loolu nga jàpp waaw loolu lañ jàpp te alliance bi comme ni ma ko waxee alliance tactique la l'objectif c'est que sénégalais dañ ko dugal si. mais est-ce que de coalition intercoalition mer mer ngemb ay mer ngemb. waaw mer ngemb si parce que tamit euh, euh, lu ñu naan euh, taal bu të tàkk fu nekk lañ koy uppee boo nekkee si koo xam ne dañ kaa jox la puissance publique jox ko la police jox ko la gendarmerie jox ko la justice moom mu jël ko di leen di dóor di leen xët di leen tëj respecté wul seen droit di leen jiiñ ne kenn moom képp koo xam ne am nga doole doo bëri moom ah yaa xayti il faut ñu jéem ñun tamit jéem a xool nan la ñuy def ba kii nii nan lañ nan lañ koy arrêté mber ngembo ngi si mais mber ngemb c'est intérêt Sénégal parce que fi mu jëmee Sénégal moo baaxul Sénégal bu ñu ko jëmee si ñàkk droit gis nga ni mu def si code pénal bi changé ko def ko code dictatorial gis nga bu mu def si code électoral bi dugal si ay clause yoo xam ne ku mu bëgg nga dugg ku mu bëggul nga dugg gis nga parité nga xam ne ñun ñoo ko dugaloon nu mu ko biaisé ñoo dugal parrainage biaisé ko cest à moom toute politique toute mesure bu muy dugal rek da koy dugal dans l'objectif de sélectionner de ah man kat euh, am naa doole waaye du bëri ku amul doole. man da te del naa ni Balla Gaye waaye nag da nga mel may jox ay yaaw jaal jox ma ñu bëri ndaw yi mais képp ku am doole ni man dama lay génne doo bëri man. parce que damaa bëgg a rester roi des arènes. loolu la bëgg a def mais mais li li amagoon jour yi ngeen campagne goon est-ce que seen xel dal na mais dafa am ñoo xam ne nee nañu engouement bi dafa des wala tabaski bi moo tax wala nawet bi la wala lu xew. waaw Sénégal yi dañoo loof dañoo sonn Sénégal yi dañoo talul folklore fu nekk nii yi dañoo xiif ñu si ëpp. Sénégal yi dañoo am ay problème parce que li moo lay wan ne rek naa réew mi doxul léegi nag ñoom ñi ngi mer sénégalais ñi ngi mer yore seen carte di xaar xam nañ ku leen ko teg donc euh, te ñun li ñuy war ñun acteur politique mooy porte à porte yi mooy visite de proximité yi mooy yëgal askan wi loolu je pense que lii élection la loo xam ne ku nekk sa gox yaa ngi liggéey yaa ngi liggéey yaa ngi saa bu ñu xëyee ñu ngi def à Diamaguène ah, Sicap Mbao saa bu ngi def ay marche di xëy di di di di di informer la population je que loolu moo am solo donc askan wi nag fu mu nekk nii mënuñoo dëgguñu dugguñu si ay yumbaay ay xumbaay ak yumbaay looyu dugguñu si parce que mënuñu ko. parce que dañoo sonn mais dañoo gis ne coalition euh, benn bokk yaakaar ma ngi jël ay ñu bari ñoo ngi transhumé di ñëw même yéen gis nañ ku si mel ni Mayoro Faye Cheikh Bara Dolly ak ñeneen ñeneen maire yu baree baree bari euh, ay Bamba Fall euh, benn bokk yaakaar ñoo ngi leen di ronk est-ce que loolu du leen néewal doole. waaw ñooñu mën naa wax ne comme ni ngay wax mère ngomb ñooñu ñooy mère ngemb suñuy frère la ñoon suñuy sœur lañu mais parce que xëy na ñoom fañ leen waroon teg si liste bi xëy na dañoo jàpp ne ñoom ñu leen fa te parité dafa faussé lu bëri parce que parité yow bu ñu la tegee vingtième position nga mère yow yaay dixième homme bu ñu la joxee dixième position nga mère yow yaay cinquième om parce que parité dañuy teg góor teg jigéen ñoom nag ñii dañ leen a teg euh, boo xam ne génn si dix premières yi mais ñu mère te wax dëgg yàlla ñun coalition lañu nekk dañuy seet ñoo xam ne ñoo gañee seen gox ñoo xam ne am na représentativité politique am na ñoo xam ne xarañ nañu xam nañ fa ñu jëm am nañu xam bu ñu demee assemblée nañu dinañ mën a euh, li ñu bëgg nañ ko mën a def ñooñu la ñuy njëkk a si kanam ah ñoom nag bu ñu meree wax dëgg yàlla politique moom mënoo ne da ngay satisfaire ñëpp à la fois. donc euh, def nañ li ñu war ñun euh, def nañ suñu investir am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom seen intérêt bopp leen ñor intérêt parti bi ñoru leen ñu génn. ñooñu nag kenn mënu leen a mais est-ce que euh, jàpp nga ne amul lu mën a yàq ci coalition bi. buñ koy non non yaakaaruma loolu parce que fu mu nekk nii. ñooñu amuñu poids politique boobu. non waxuma amuñu poids politique. parce que non par exemple tey mën naa la jox exemple Mayoro Faye. Mhm. Mayoro Faye bu démissionné ci PDS nekkoon Saint-Louis. Mhm. ndax jàpp nga ne dina am impact. ci élection yaakaar naa ne sama sama xarit la sama sama grand frère la mais moom ba mu activé Saint-Louis sax yàggul ñun ñoo promotion la rek ñun ñoo defal. mais yaakaar naa ne Saint-Louis ku ko xam-xam ne base politique bi lañ fa am si PDS mi ngi reste fidèle au parti démocratique Sénégal topp ma Mayoro Faye parce que Mayoro Faye yàggu fa trop. mais yéen PDS aussi seeni affaire parfois daf may euh, jaaxal ndax sànq yow ànd ngeen te ci fichier électoral bi presque bi ñu demoon 2019 fichier électoral boobu si ngeen demee élection mais yéen deuxième mandat bi bu Macky Sall est-ce que ndëngate yu Macky Sall def ak njombe yu mu def est-ce que. yéen PDS entre guillemets amu amu leen ci part de responsabilité ndax seetaan bi ngeen seetaan 2019 bu ngeen faroon fenn euh, ndëgë ni peut-être li am mën naa bañ a am. waaw oh non 2019 da di far nañu parce que xëy na nit ñee ne faruñu waaye far nañu xëy na xëy dañoo bëggoon ñu tudd tur waaye dañ ne watal leen ñëpp ba mu des Macky Sall ak Madické Niang loolu ko yaakaar nañ ne far nañu. donc loolu koy nit ñi xëy na loolu kay far bu nu ko weesu wooteel leen ñëpp ba mu des Macky Sall ak Madické Niang loolu kay yaakaar naa ne far far parce que Madické Niang nu mu ñu nu ñu nu mu ñu génne woon ah lu tax ñun nekkuñu candidat nan la ñuy campagne waaw mais man a ngeen campagne ah mais boobaa yoon tal suñu kaw déedéet amuñu liste amuñu kii mais ni ñu war a campagne kay mooy ñi ñi xam dañ leen wooteel leen ñëpp li ñu wax kay leer na wooteel leen ñëpp ba mu des Macky Sall ak ak ak euh, yaakaar naa ne kay far mënu ko weesu wala dangeen ngeen bëggoon ñu ne wote leen Idrissa Seck bu baax ñu ne ñu wala wote leen Sonko wala wote leen mais amu woon candidat amu leen woon candidat mhm. mais ay coalition ma ngi fi woon fi ñu toll nii ci élection législative yi mhm. coalition yi bari ma ngi fi mhm. am ngeen coalition bu ngeen tànn ànd ak moom. lan moo tax 2019 tànnu leen ab candidat ànd ak moom. waaw yaakaar naa ne Sonko doole bu mu amoon 2019 doole bi mu am nii amu ko woon te aussi 2019 candidats yi bëri woon nañu du woon bokkut nee naa la ñun lii dañ koo laal si lan dañ koo laal si. non Sonko léegi la gën ëpp doole que 2019. waaw léegi dama ne léegi la ëpp doole dañ koo laal si lan dama ne dañ koo laal si ay études nee alliance bi du alliance stratégique alliance tactique la pour faire face à un adversaire qui ne respecte pas l'état de droit ñu boole suñu force pour xeex ko il faut sénégalais yi xam loolu alliance bi li ko waral mooy dañoo ànd. kon yéen uniquement c'est pour xeex Macky pour xeex Macky Sall ak pour xeex pour installer l'état de droit pour ma Sall nu mu jaaxee réew mi. yàqee suñu état de droit yàq suñu constitution dugal fi benn code euh, pénal dictatorial euh, yàq réew mi sur tous les plans pétrole bi mu mu mu wanteer ko euh, lépp lu ñu am si richesse mu wanteer ko alliance boobu. moo tax dafa jaay géej dafa jaay géej gi xam nga moo tax nga élection yi maa ngi gis ñu naan am nañu ay contrat de législature rek loolu da dama leen koy nangul mais nañu xam ne mooy législature assemblée bi mooy assemblée bi gën a gàtt ay ay fan. parce que bu waay amee at ñett euh, juróom-benn weer parce que dañu fay dugg dugg si élection présidentielle ñëpp xam nañu après élection présidentielle beneen assemblée mooy am kon boog duñu fi nekk naan dañuy def ay cla ay plan déedéet suñu objectif mooy lan parce que ñun yàgg nañ si politique yaakaar naa depuis 78 ba tey PDS 74 lañ ko créé 76 ba léegi ñu ngi ñu ngi dem assemblée. kon te ñun ñoo njëkk a def contrat de législature en en en en 2018 en que euh, législature bi un an six mois maximum lay am kon boog danga nga si def li nga si mën a def bu ñu nax sénégalais yi naan mën nañ si def lii mën nañ si def lii mën nañ si def lii ñun lañ ne bu ñu ñëwee ay réforme lañ si def pour créer fondement bu baax ba Sénégal mën a nekkaat si état de droit ñun loolu lañ si def. loolu Ousmane Sonko nee na ñoom bu ñëwee dara ñu teg ay commission d'enquête parlementaire yoo xam ne. képp ku ànd ak Macky Sall xaalisu réew mi euh, di nga ko génne nee nañu tamit euh, am na loi yoo xam ne ñoom dinañu ko jéem a taxawal. waa loolu bu faloo la la wax Ousmane Sonko bu faloo la la majorité. non ah, non non ak ah, loolu yëpp dañ ko def mais loolu wax du fi xaj parce que xam nga temps waaw xam nga temps justice temps justice ñun ñun on est dans le concret temps justice du du c'est pas le temps ordinaire. déjà procès lu mu dee dee dina am un an deux ans trois ans quatre ans c'est des procès d'envergure kon ñun lu ñu wax mooy dinañ créer les bases danañ def des réformes juridiques loo xam ne dañ ko mën a def mooy les réformes juridiques. mais réforme mooy loi. très bien mais loi boobu mooy danañ fexe ba euh, code pénal bii fi Macky Sall teg ñu modifier ko code électoral bu bon bii mu fi teg ñu modifier ko fexe ba constitution bi nu mu koy jalgatee mu bàyyi ko fexe ba euh, euh, code minier bi ak code pétrolier bi nga xam ne dafa jaay suñu alalu réew ñu xoolaat ko modifier waat ko. su ñu amee cohabitation. très bien loolu mooy l'essentiel. mais nekk ñoom dañuy bàyyi Macky Sall mu liggéey parce que Macky Sall bi fi dese bëriwul mais lépp lu mu yàqoon moom incha allah nañ ko jéem a defaraat lépp lu mu def si lu baax ñu ànd si ak moom bi nee na yéen da ngeen a bëgg tey bu ngeen amoon tey euh, majorité assemblée nationale da ngeen di bloqué réew mi waaw loolu moom ñoom loolu waxin la rek mais ñoom ñoo bloqué seen bopp yaakaar naa ne réew mi moom dafa bloqué wu ba pare ñun kay bu ñu ñëwee dañ koy débloqué xam nga réew mi lekkuloo naanuloo amuloo jàmm foo génn ñu tëj la foo marché ñu tëj la loolu moo bloqué réew mi ñun nag bu ñu ñëwee xëy na économie bi temps bi dina ndaw mais dinañ débloquer leen muy le plan juridique nañ fexe ba Sénégal yi retrouver seen liberté Sénégalais yi ñimee marche Sénégalais yi amaat seen xamaat seen seen gëdd réew euh, euh, contrat yi jaay bazarde ko ñu récupérer waat ko yaakaar naa ne ñun loolu la ñuy def si un an six mois yooyu. mais mais euh, Malaw Ndiaye yow nga bokk ci PDS membre comité directeur bokk si ñor communication PDS yéen. yéen wàllu in yéen wàllu yeewi seen campagne bi lu si baree baree bari da ngeen di faral di wax ne euh, Macky Sall euh, wàllum góor jigéen bokk na si seen campagne que Macky Sall def nañ proposition de loi voté wu ko ñu criminaliser ko beneen bi mooy seen campagne euh, mooy Macky Sall bu ngeen ko voteelee ba mu am majorité day def beneen day def day posé beneen candidature te bu boobaa Sénégal mën naa dugg ci ci ci kaaw presque ñaari yii ma la wax nii bokk na si euh, li ngeen campagne lu ngeen si jublu. waaw kon xam nga ne kon man wax naa ba pare tudd si ñaar yooyu benn. kon loolu xëy na nit ñee wax rek mais dañoo xamul suñu programme. mais yéen yéen da ngeen koy wax. waaw waaw loolu si xëy na lu ndaw la si lu ñuy wax mais loolu da di dafa fës loolu da du kenn du ko jeex dafa teew parce que def nañu benn projet de loi pour criminaliser l'homosexualité Macky Sall bañ ko loolu ñëpp nga gis ak ay député dañ ne loolu projet de loi boobu dañ ko dugalaat ñun bu ñëwee criminaliser parce que loolu yomb la projet de loi bi togg nañ ko ba pare bu ñu amee majorité kay dañuy ñëw rek dugal ko criminaliser l'homosexualité. mais jublu si diaboliser rek. déedéet dama ne loolu loolu non dañuy diabolisation parce que ñun ku xam askanu Sénégal xam nan la ñu fonkee suñu diine xam nan la ñu bañee mbirum góor jigéen loolu dafa bokkul suñuy valeur te loolu Sénégalais yëpp si mer ku la ko wax ñun loolu bu ñu toogee loolu moom c'est bu ñu amee majorité moom le projet de loi est déjà là dañuy dugal dañu wate su lu ñu njëkk réglé la troisième mandat bi moom yoon daf ko mayul mais li ñuy wax ñu neew ñu Macky Sall amul droit def troisième mandat loolu yoon moo ko mayul constitution moo ko mayul parce que ñu bëri dañuy jaawale Ablaye Wade ak Macky Sall ñun dañoo ba fal si élection si constitution 1963 ñu modifié ko en 98 ñun ba ñuy falu amul limitation de mandat ba ñuy falu Euh, dis amul benn disposition bu ñu ne limi am na limitation de ñun dañoo fal ne ñu dem leen ba heure bu leen neex ba ñu ñëwee ñun suñu suñu bëgg réew ak suñu fonk réew ñu en mille 2001 ñu modifier la constitution dugal ci limitation de mais loi ñëpp a xam ne ne loi mënul appliqué wu ci lu ko mag c'est-à-dire loi buy appliqué wu day appliqué wu ko lu ko lu mu fekk ba pare moo tax euh, ba ñu laajee conseil constitutionnel dañ ne ñu yéen seen mandat boobu ñoom sax wax nañ ñëpp ko wax fu mu nekk nii ñoom ñëpp ko wax ne ak Abdoulaye amoon na droit à une troisième candidature ñëpp ko wax parce que yoon mayoon nañu ko parce que ñun ba ñuy dugg neewu ñu na lii ngi contrat de mandature bala ngaa dugg lañ la koy signal mais Macky Sall yaa xeeti mu laay moom ba muy dugg 2012 dafi fekk constitution bi ñu ne ko ñaari mandat nga am moom ay article 29 ak loolu yëpp ay waxit la rek loolu ñun loolu xooluñu ko amul benn niche juridique bu ko permettre mu am une troisième candidature léegi nag lu ñuy bañ mooy boo gisee ñu wax lii ñun xam nañ ni juridiquement teg nañ ko fu wóor juridiquement Macky amul benn buntu bu ko may mu présenté wu troisième mais lu ñuy bañ mooy mu naagu parce que moom dañ koy jey bu amee majorité fu mu nekk nii dina naagu yaakaar na askan wi bëgg nañ ko ba léegi te bu boobaa nag ak waa bitim réew nga xam ne day defaan seen intérêt mun nañ ko pousser ne ko nga def troisième candidature te boobaa tamit du am te lu bari mën na fee am Sénégal mën naa nekk si guuta ay dee am fi lépp am fi ñun loolu lañ koy bañal moo tax ñu ne nañu fexe ba troisième candidature bu ñu ko dugal si xelu Macky donc ñun xam nañ ni juridiquement par A par B Macky Sall n'a pas droit à une candidature mais dañoo buggul mu am yaakaar wala ñu jey ko wala ñi koy jey ay ñi koy ñu koy dugal am argument ñu ko dugalee. léegi su ko jee mën a forcer nu ngeen def. non du dem dañuy bañ parce que. Euh, la résistance à l'oppression c'est un droit universel loolu c'est depuis la euh, depuis euh, la loi fondamentale droit universel des droits de l'homme de 1789 que nit ki bu ñu la bëggee bundu xataal am nga droit opposé wu oppression oppression mooy lan lii yoon may loxo nga ne man damay forcer loolu bu boobaa ñun danañ gis opposition ñu résister wu ak nu ñu ko mën a defee mais dinañ ko def. te incha allah bu ñu résister woo du du troisième candidature bi du jàll. waaw mais gis nañ ne tey par exemple tey coalition Benno Bokk Yaakaar. ñoom ñoo ngi def seen campagne seen caravane Aminata Touré euh, fu mu dem mbooloo mu bari ma ngi génn yeewi askan wi ñoom Ousmane Sonko Déthié Fall Khalifa Sall ñoom itam fu ñu dem mbooloo mu baree bari ñoo ngi génn est-ce que engouement boobu ñaari coalition yooyu am est-ce que yéen seen coalition bi euh, di wàllu Sénégal yéen a ngi drainer fu euh, ful yooyu. waaw dama ne yaakaar naa ne élection yi ñu génn PDS moom koo xam-xam ne man dama ne c'est la première force si on le parti individuellement. de l'opposition yaakaar naa ne ñoom bu ñu dajalee waa yeewee lu ñu am amoon yëpp 8000 voix la ñun on a 5000 et quelques voix donc le pourquoi parce que ñun dañoo am base dañoo structuré suñu parti ba pare dañoo am yàlla daf ñu leader boo xam ne nit ñi dañu koo bëgg parce que dafa xeexal Sénégal il est évident que Ousmane Sonko fu mu nekk nii la jeunesse est avec lui loolu loo ko bañ-bañ da kay koy nangul mais ñun nag ñun tamit dañoo am candidat boo xam ne muy des jeunes dafa ñëwagul te avant Sonko mobilisation yi ñu daan def yëpp waa génération du concret ñoo fa daan ëpp les les karimistes ñoo fa daan ëpp mais xëy na fu mu nekk nii suñu candidat duñ ko xeex génn ko réew mi te loolu incha allah ñu ngi siy xeex ñun amuñoo ñuy parti boo xam ne suñu ñaari mentor nekku fi ab Abdoulaye di nekku fi Karim nekku fi ñuy ñuy ñuy am ay mille ak 6000 voix yaakaar naa ne kon loolu structure moo ko war a parti bu structuré wu Séné euh, PDS foo dem au fond fond du Sénégal am nañ fa des représentants te ñoo tax ñun ay politique xam nañ ne politique moom euh, meeting du politique meeting meeting ak ak juro war du benn mais daal li ñu war suñu ñi ngi def mobilisation yu mag a mag xëy na kay yéen xëy na ñun dañoo amul ambition di ko wane wala lenn mais ñi ngi def ay mobilisation yu mag a mag a mag a mag te yaakaar naa ne dinañ def ay meeting dinañ tëjee ay meeting meeting yooyu di nga xam ne PDS euh, mi ngi resté un grand parti politique. mais seen waa ji tey euh, keroog fan yi dégg naa Lamine Thiam naan maître Abdoulaye Wade dina ñëw mais man njort naa ne Abdoulaye Wade du ñëw yow. lan nga jàpp. waaw man Lamine Lamine moom day waxtaan ak ñoom man li mu wax laay jàpp koo xam ne da ngay diggante ak Ablaye Wade diggante ak Karim Wade man ni muy diggante ñoom man diggante wu ma ak ñoom kon moom du wax waxu loo xam ne tegu ko fenn. mais lu ngeen jublu si. incha allah def tête waaw parce que mooy suñu général national Ablaye Wade moo moo dirige parti bi. yaakaar naa ne ku nekk sa parti kay booy def booy def. élection gëm seen bopp wut benn secrétaire général Ablaye Wade mag la. waaw mag la waaye ba tey mi ngi mën ba tey nit ñaa ngi koy bëgg xam nga politique opportunité nit ñaa ngi koy bëgg. Mhm. waaw d'accord. Mhm. xam nga politique xam nga ñu bari dañuy wax te xamuñu luy politique politique opportunité la politique da ngay chercher fas bi gañe nga teg ko ci kanam donc comme Abdoulaye Wade ni mu nekkee ci xolu nit ñi ba tey def ci des dañ ko fiy teg dañ ko fi teg bis bu doom ji ñëwee nag bis bu ñu bàyyi woon doom ji parce que Karim teguñu ko fi extiniloo Karim ñun dañoo def ay sondage au niveau du parti démocratique sénégalais def ay études def ay ay ay ay xool réew mi mais c'était euh, après 2012 euh, c'était le candidat le plus représentatif au niveau du parti démocratique sénégalais waa PDS ñoo ko proposé ces études yooyu kon Karim ñun nekkul dañ koo teg parce que doomu Ablaye déedéet dañ ko fee teg parce que xëy na dafa am lu mu hérité ci Ablaye Wade sénégalais yëkk bëgg li ñu bëggoon ci Ablaye Wade moom la jël transféré ko parce que doomam la. te loolu dañ ko koy nangul loolu moo tax ñu def ko candidat te Macky Sall dafa def ay étude boo gisee 2000 musul nangu Karim ñoo xam ne lu tax Karim bañ koy tëj kaso rek visite yi ni mu daan ñëwee visite yi rek taux taux d'affluence bi rek dafa tiitaloon Macky la parce que loolu yàlla moo koy def si nit te politique nag wax dëgg yàlla dafa mel ne ngay dem course ret da ngay seet sa fas wi nga gën a yaakaar ne moo gën a gaaw moom ngay teg ñun au niveau du parti démocratique sénégalais teguñu que euh, doomu Ablaye Wade la dañ koo teg parce que dañoo yaakaar ne moom moo mën a dundal parti bi moom moo mën a euh, euh, drainer la euh, le vote moom moo mën a gañeloo parti bi te incha allah bu ko Macky Sall bàyyi woon ba tey gañe nañu élection yi. d'accord jërëjëf Malaw Ndiaye yow nga bokk senior communication parti démocratique sénégalais ngay professeur finance comptabilité li nga xam ne tey moom mooy campagne bi gis nañ ne am na quelques violences yoo xam ne am na ci. gis nañ si tamit ay déclaration yoo xam ne ñu bari ñaawlu nañ ko ndax dañu jàpp ne coalition bu nekk warut am fenn sens interdit ñu gis ci maatam far ba euh, Ngom Dankafo euh, waaye Yewwi ak ku si mel ni maître Bokar Thiam euh, loolu déclaration yooyu lan mooy si sa gis-gis. waa ñun moom au niveau du parti démocratique sénégalais ku ñu xam-xam ne parti bu dal lañu parti bu exercer pouvoir lañu xam ñu réew lan mooy les côtés sensibles. réew kenn du ko yor si boot di xonte xeet naan ay nen ko kenn du ko yor si yaakaar na yow képp ku bokkul si sa côté da nga kaa war a tëj bu bu bu sàccee ku ku far ku yore couleur couleur marron beige bu détourné wu gis nañ fi ay député gis nañ fi koo xam ne dañ koo jàpp ak ay faux gis nañ fi ñoo xam ne dañ leen jàpp ak ñuy manipule def ay faux passeport gis nañ fi koo xam ne faux faux médecin la gis nañ fi gis nañ fi gis nañ fi te ñooñu ñëpp bàyyi nañ leen gis nañ fi ñu détourné ñoo xam ne dañ leen a euh, Prodac gis nañu xaalis bi ñu fay gis nañu problème mu Mamour Diallo bi gis nañu rakk ji donc da di ay ñoo xam ne ay milliards yi milliards yoo xam ne dañ ko détourné mais comme dañoo farciman rek kenn du leen inquiété te keneen nag yow da ngay dem di créer pour taxal ñeneen pour tëj leen donc loolu lañ ne état de droit loolu du si nekk loolu mooy indi bondu xante donc bu ma bu ma jàppee ne man mi kat yow képp ku far si yow wala képp ku bokk sax ethnie da nga koy protégé képp ku bokkul si yow doo ko protégé loolu nag nit ñi mën nañoo xalaatee neneen loolu mooy indi yenn xalaat yi loolu mooy indi yenn comportement yi parce que ku bëgg a dee wexu koo ne du ma la topp fu ngeen jëm a soriwul Casamance dafa am dañ koy métti lu ñun ñëpp mais dafa am kenn rafetlu ko benn manifestation ñett wala ñeenti nit dee si donc loolu dafa doy waar te problème moom manque bu bi tamit dafa ñëwaat yokk karaw si xar bi donc loolu nag day bu yàggee day tax nit ñi ku mu neex wala ñi ñiy gàtt xel wala ñi ñi nga xam ne peut-être que Euh, pulsion la ñuy doxee ak kii dañuy xalaat ne ñoom ah lii kat xëy na dañoo ràcc jëmale si bii côté bàyyi bi côté te loolu nag yorewul réew yaakaar naa ne ñun dañoo nekk état un état nation nga xam ne ñun si ay valeur lañu lañu lañu lañu lañu la ñu soxee Sénégal Sénégal lépp lu ñuy envier mooy ñun ñëpp benn lañu c'est un c'est une nation homogène nekk si jàmm jàmm jooju lañ ñëpp nawee yaakaar naa ne yaa xeeti mu laay dañuy ñaan rek ñi fi nekk ñu bañ yàq jàmm jooju. d'accord jërëjëf euh, candidat bi di Karim Meïssa est-ce que ma ngi suivre de près li nga xam ne mooy élection législative yi. waaw Karim moom Karim dafa bëgg Sénégal dama lay jox histoire Karim Karim fii la jànge ba comme ni ñu defee rek ba war a dem étude supérieure la soo a dem Europe donc euh, euh, xam Sénégal moo tax ñu bëri ñu ngi wax ci moom dañuy bàkkaar Karim en 95 la am massam en en finance. liggéey benn banque de Suisse de France banque bi gën a mag dafa def stage matalul six mois ñu jël ko jox ko muy gérer contrat fusion ak liquidation nga xam ne moo gën a ñun ñuy def comptabilité xam ne ñu moo gën a metti un an la fa def union des banque de Suisse recruté ko def ko muy gérer tout ce qui est contrat minier tout ce qui est contrat pétrolier muy liggéey ak naar yi seen i contrat di leen monter projet xam bu baax partenariat public privé donc Euh, ba ba Ablaye de faloo parce que Ablaye Karim 99 dafa ànd ak Ablaye di ñëw ñu bëri xamuñu ko dafa ñëw ànd ak moom campagne ba Ablaye di gagné élection yi mu delluwaat te loolu mën nga def si bu la neexee ngeen def si études yëpp recherche yëpp boo demee Google sax nga koy gis mu delluwaat ne papa kat ah wax dëgg yàlla sama banque bi ma nekk def nañ ba fa kilifa ñu ngi may fay salaire bu baax xaaral ma liggéey fa mu dem dellu de 2000 à 2002 scan ay scandale am fi gars yi di tibbee nu mu leen neexee léegi nag. Idrissa Seck sa bokkoon na si ñu wax Ablaye ah sa doom kat bu ñëwul nekk sa wet xëy na gars yi lu bëri dañ koy def Ablaye Karim ñëw de 2002 à 2009 mu nekk conseiller la Wade yore projet yi nag projet yi nga gis Sénégal yëpp moo ko monté parce que Ablaye économiste la mais du moom du monté projet Karim nag moom yàlla daf ko def si njàng moom loolu la jàng loolu la xam lépp luy projet lépp luy pétrole lépp luy euh, euh, partenariat public privé mu monté des projets c'est lañ ko def ministre d'État en 2010 la commencé yor des charges gouvernementales parce que boobu ñu ngi jalgati ñu ngi yàq courant bi courant bi Senelec ngi am problème boobu coopération internationale tubaab yi yaa ngi yàq boobu Abdoulaye Wade mi ngi nekk fin de pouvoir gars yi di saboté si deux ans yooyu la Karim yore ministre bu mu yore muy ministre de la coopération comme gars yi di ko waxee rek euh, ministre de la de l' aménagement du territoire ministre de l' énergie du transport et des infrastructures côté yooyu yëpp dañoo amoon problème dañ doon sooxe mu jël ko liggéey si liggéey bu am waal bu am solo nag bu am am solo donc kooku mu di ko xarit mu di ko bëgg réewam Macky Sall ba mu toogee 2012 la toog 2013 mu tëj ko avril 2013 parce que moom loolu moo nekkoon si xolam. parce que kat xëy na doon na def loo xam ne jaaduwul Karim ñëw tëj robinet yi Karim ba mu ñëwee 2002 dafa tëj robinet bi ñëpp ñu doon tibb daf leen tëj dafa tëj seen robinet mënatuñu tibb ñu mere ko diaboliser ko xeex ko ba. Euh, mettre ko en mal ak askanu Sénégal. d'accord léegi est-ce que tey yéen bu ngeen euh, seen am na ñuy wax ci pouvoir bi kan yéen li ngeen bëgg mooy bu ngeen amoon tey euh, majorité mooy kaawu Karim kaawu Khalifa presque bokk na si leen gën a intéressé. déedéet loolu injustice la Karim ak xalifa leen dal ñëpp xam nañ ne du ma bëri yow dama laa ragal loolu moom ñëpp Sénégalais yëpp d'accord ne ñii dañ leen war a rétablir seen i droit mais loolu lu ndaw la si combat bi. loolu rek mais loolu da di loo xam ne si ay point yoo xam ne point essentiel la. léegi nu ngeen di def ba ba Karim mën a di bokkaat ci élection. waa Karim moom code électoral bi lañ dugal rek benn article 57 lañ dugal ne tout candidat électeur donc loolu xam nga loolu loolu mooy yëfu yëfu yëfu yëfu yëfu yëfu yëfu yëfu yëfu bañ nit ak xeex nit parce que Karim kat bul fàtte ne dañ ko war moom Macky Sall nee na da koy amnistie moom mën na ko bugguma moom dafa ne ko da nga maa tooñ ñu réviser procès procès bi bu ñu ñëwee si la révision du procès possible ñu def ko bu possibleul ñu changer donne boobu mu mën a présenté aussi candidat parce que Karim bénéficie de ses droits civiques Karim mën na euh, nekk électeur mën na voter mën na def lépp mais nag ñoom ñooy trouver seen assis di tàddal ay inscription di trouver astuce pour bañ pour bañ mu nekk électeur mais loolu moom Karim moom ak Khalifa Sall ñoom ñëpp ñu ngi seen i mais nag ay astuce la Macky Sall teg pour chaque fois di leen empêcher ñu nekk ay électeur ah, jërëjëf euh, Malaw waxtu yi jeex na ñu lay sant di la gërëm waaw maa ngi lay sant di la gërëm di wax nag waxtu bi moom gàtt na trop parce que li ma bëggoon a wax yépp xëy waxuma ko parce que le parti démocratique sénégalais xëy na nit ñi dañ ñoo xamul suñu candidat Karim Wade bëggoon naa nit ñi gën ko xam yaakaar naa ne beneen émission mën naa am pour ñu gën a xam kan mooy Karim xam PDS ban expérience la am ak fan la jógee jëlee sénégalais parce que dama damay wax lu ndaw rek ba ñu jël réew mi en 2000 budget Sénégal xam nga ñaata la woon 535 milliards lañu fekkoon budget Sénégal. ñun ba ñu fiy jógee ñu ngi ko yóbbu 2200 milliards amuñu pétrole amuñu or amuñu dara présentement suñu dernier budget bi mu ngi nekk les recettes sont évaluées à 3000 à à 3600 quelques milliards les dépenses à 4200 milliards donc ce qui veut dire que ñun lu ñu defoon si sursaut si yokk si budget kenn def ko. te domaine yëpp nag noonu laa lay waxee ñun wax dëgg yàlla euh, au niveau de nos relations avec euh, le FMI et la Banque mondiale ñun ba ñu ñëwee lan lañ leen wax dañoo wax ñun dañuy teg des instruments de soutien politique et économique dañu ne Banque mondiale soxlawuñu sa leb soxlawuñu sa xaalis léegi li ñu bëgg mooy ñu part def ay partenariat nga bàyyi ñun ñu dem li lijjanti suñu bopp donc loolu autonomie la ñu amoon mais Macky Sall dafa ñëwaat yàq loolu yëpp delloo si loolu moo mu nekk nii moom Banque mondiale la xalaat France la xalaat Amérique la xalaat moo tax mu nekk nii nag ñooñu dañuy jël baat rek teg si baat bi dañuy jël buum teg ko si baat bi lu ñu ko def loolu lay def donc loolu moom metti si lépp lu ñu liggéeyoon daf ka màbbal mais incha allah bu ñu ñëwaatee au pouvoir dinañ def lépp ba fa Sénégal tegu woon fa ñu bëggoon a Sénégal ñu yóbbuwaat ko fa waaw maa ngi lay gërëm nag di di la sant di gërëm di say sant aussi say auditrices ak say auditeurs di gërëm sénégalais yépp di gërëm aussi waa parti démocratique sénégalais jërëjëf jërëjëf euh, Malaw Ndiaye mbokk yi mu mbokk ci euh, parti démocratique sénégalais bokk si ñu yor communication euh, bu PDS mu nekk professeur finance comptabilité mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo ma nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi kon ñu leen di jox dig daje si beneen jataay jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.